leen dalal ko may héros ginnaaw bi ñu duggee ci salle de conférence bi Ousmane Sonko ak candidat ba Bassirou Diomaye fay daal dinañoo génn seen génn bu njëkk ginnaaw bi ñu leen libéré si jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi moom leaderu Pastef bi daal di ànd ak confiance bu rëy waaye nag terewul mu daal di rek alerter sénégalais yi si taxawaayu conseil constitutionnel si l'élection élection bi bu jaaree yoon. gëw ma ni mun nañu def moins de 60 pour cent incha allah. waaye bu ñu jàpp ni c'est gagné d'avance bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb te ci gannaaw ga ñu xam ni am na leneen ak leneen lu ci laxasu yenn saay ëllëg bu ne bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si ne conseil constitutionnel. nañ ci ànd ak tey ak dal. Ousmane Sonko daal di confirmer ne que waxtaan dox na digganteem ak nguuru Sénégal waaye nag déggoo musu fee am. waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laal loi nissi bi coow bu ne dégg nañ ko ci muy deuxième poñ boo xam ne discuter nañ ci dañu ñëw wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci see changé dañu ne woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu dialogue loo. ginnaaw bu jëlee kàddu Bassirou Diomaye Faye moom. dafa daal di rafetlu engagement wu patriote yi. waaw patriote yi muy góor muy jigéen ñoom ñëpp la ñu bëgg mooy dëkk bu moom boppam yoon am ca loolee taxi tax na ba patriote yii ñoom ñëpp gën a gëm ne loolee wàllum jàmmkat moo leen gën a soxal te gëm nañ ni loolu mën a nekk ci dëkkum naataange ci dëkk buy dox ci dëndu Afrique. mu des ay fan yu amal élection présidentielle yi Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay fas yéene fekk ji yeneen membre coalition bi ngir rek amal campagne bi ngir ñu mën a am ndam si guddi ñaari fukki fan ak ñeent si weeru mars atum 2024.